inna allaha kaana aleykum raqiba mbokk jullit yi gannaaw bu ñu dellu siwaatee ci seen waxtaanu diine bi nga xam ne tey ñu ngi ci jël tomb bi nga xam ne mi ngi aju ci biir néegu sëy di santaane bi yàlla diit yoon wu yàlla rëddal jaam ñi rawante ne kilib jullit moo tax yàlla subhaanahu wa taala di wax ne yéen nit ñi yaa ayuha nnaasu taqu rabbakum gis nga mu jiital rek daal di wax ne yéen nit ñi na ngeen ragal seen boroom na ngeen ragal yàlla subhaanahu wa taala mi leen manal sañal leen manal gi mi ngi tàmbalee ci alladi xalaqakum min nafsin waxida moom mi leen bind ci benn bakkan muy bakkanub aadam وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء bind ki nga xam ne itam moo di aji nekkaaleem muy xawa ba mu leen bindee ñoom ñaar bind doomu adama yi ci des yépp nag ñu jaaree ci anam nga ñu jaaree ci moom yàlla def leen ñuy sekki di bari ci kaw suuf ba toll ni ñu toll tey yàlla ne nag nangeen sàmm bokk googu ngeen bokk bu ngeen bokkee aadama ba noppi waaye bokk seen bokk goog jege ñaale nag na ngeen ko sàmm loolu mooy wattaqullaha alladi tasaaluuna bihi wal arham na ngeen sàmm ak mbokk mbokkum deret ak mbokkum dëkkandoo ak mbokkum jullit yépp ndax inna allaha kaana aleykum raqiba yàllaa ngi leen di gis yàllaa ngi gis seen lépp yàlla ngi xam seen lépp mu mel ne tey li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ci xadis bu ñu jële ci anas radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man razaqahu llahu mraatan saalihatan faqad aanahu ala chatri diini falyattaqi llaha fi lbaaqi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na gépp góor gu yàlla wërsëgale man la may la sansus nga am soxna su yiwee su baax yàlla dimbali na la ci sa xaaju diine maanaam li tax yàlla indi la fi ci jaamu ko ak déggal ko gëm ko boo ko defee ñaari xaaj yàlla wërsëgale na la benn ba loolu liñ fi mën a dégge moo di ndekete kon soxna su baax mooy genn wàllu diine nit ki kon day loola lu jara sonne lay war a doon lu jara sant yàlla lay war a doon waaye lu jara taxaw la itam fexe ba yiwe googee du dañ ba mukk moo tax mu ne ku yàlla dimbale ba jox la soxna su baax day sa xaaju dunduk àdduna ci li la fi yàlla indee moom am nga xaaj ba kon fal yattaqillaha fil yi xaaj bi ci des nag na nga ci ragal yàlla na nga ci ragal yàlla mooy lan na nga xam yàlla mi la ko xéewale jox la ko na nga ragal yàlla ci moom itam ba doo ko lor ci genn anam bul jàpp na yëpp dangaa yor koo xam ne rek nu la neex doxale ak moom ci sa cooba rek sa bëgg ak sa bànneex waaye fal yattaqillaha fil baaqi li des nag mooy yor ko toppatoo ko ak la ngeen di séq ci àdduna ak la ko warlul ak lam la warlu lépp nga ragal ci yàlla subhaanahu wa taala loolu mooy fal yattaqillaha fil baaqi kon nu ñu ragal yàlla ci ku yàlla dimbale ba ka nga yor nga am ak cantam nga am ca moom la nga bëgg wala la ca ëpp bokk kon na la ca topp nag na nga ko mottalee ak ragal yàlla ci jëflante ak moom bariyaa na koo xam ne moo yàq yéenay soxnaam tey ndaxam ba fi fiy doog a ñëw wala ba muy doog a ànd ak moom amoon na yéene ju rafet moom soxna si ak xol bu leer waaye melokaanu ku góor ga tax na yéeneem yàqu ab xolam daal di lëndëm mu tàyyal ci yu bari kon fal yattaqillaha fil baaqi xam ngeen ne bii nga xam ne mooy aaya alquran bu tedd bii di yaa ayuha nnaasu taqu rabbakum li muy tegtale moo di mbooloom nit ci àdduna ak ni leen yàlla bindeeg ni mu leen forme ci diggante góor ak jigéen def leen ñuy sharikaani fi taamiiril kawni wal qiyaami bi aabaail istixlaafi wa takwin al usrati saaliha yàlla mi nga xam ne société bi kat li muy rëy rëy yàllaa ngi ko composé ci ñaar ñi muy góor ak jigéen def leen ngir ñaari woy bokkaale ci dundal suuf si dundal àdduna si ñu nekk loo fi gis muy taxaw rekk loxob doomu aadamaa nga ca loo fi gis muy rafet walla muy nuru lu ñuy defe lenn loxob doomu aadamaa nga ca lu tax fii taamiril kaw ni muy dundal lii nga xam ne moo di àdduna ak itam ba yàlla defee sunu maam aadama muy wutaat ci kaw suuf wutaatu yàlla ah ñi fi des itam nekk wutaat topp ca loolee di ko dox waaye itam li ñuy tudde formé ak njaboot itam bàyyi ko ci ñaari nit ñi muy góor ak jigéen rek loolu moo tax lislaam dafa ñëw xir lool ala islaaxil mujtamaa al basari lislaam dafa ñëw yittewoo lool ci defar ab communauté waaye defar mbooloom jullit mbooloom ay nit ñoo xam ne ay qualité la ñuy doon moo tax lislaam sàmm dereti nit ki kenn warta tuur deretam lislaam ñëw sàmm derob nit ki kenn waru caa teg baat ñaaw lislaam ñëw sàmm diiney nit ki kenn warut dox digganteem ak diineem lislaam ñëw sàmm xelum nit ki kenn warut yàq am xelam ci naan sàngara wala def lu koy tàggaleeg sagoom lislaam ñëw sàmm alali nit ki ba tax mu xaraamal sàcc xaraamal itam tooñ jalgati ci genn anam jël alali jàmbur kon nit ki la mu am ci alal yii lislaam sàmmal na ko ko moo di deretam kenn waru koo rey doomu aadama kenn waru koo rey ci lu dul yoon waaye ab daram itam kenn waru tàjjaateeg nag baat bu ñaaw niki noonu la diinam itam dañ ko ko war a fonkal te bàyyeeku ko am xelam niki noon la moom ci boppam warut a foye diineem warut a am xelam muy def ca loo xam ne mooy tax sam xel di jaxasoo loolu yépp lislaam da koo sàmbal nit ki sàmmal ko alalam niñ ko waxee mooy fexe ba sa alal nag dara doo ko foyee doo ko caaxaane doo ca def lu xaraam waaye danga koy dundee ci na ko yàlla santaane loolu moo tax mu teg ay regal teg ay yoon yoo xamante ne bii dafay leeral lépp loo xamante ne bii moo tax doomu aadama mën a yéeg jëm ca kaw mën a am yokkuteg àdduna mën a am texeg àdduna ak goog àllaaxira loolu moo tax lislaam tëral ay luwaa ak yoon nag ne bu ngeen ci jaaree day ngeen am texeg àdduna ak goog àllaaxira moo tax lislaam daal di charia rëdd nag aw yoon woo xam ne mooy yëkkati mbirum nit ñi di dëggal seen tedd nga ak seen dignité ci kaw suuf bu fekkonte ne benn luwaa amut nit ñi kon ñoog bahima yi yem dara du leen xàjjale ak bahima yi su boobaa loolu moo tax lislaam tëral ay luwaa ak yoon yoo xam ne kenn ku nekk am na foo war a yem ci sa moroom am na noo ko war a jàppe loolu nag moo tax lislaam ñëw gàddul kenn ku nekk wala famille bu nekk xayaatan mustaqirratan sharifatan dund gu sell te tey kenn ku ne war ngaa dund dund gu sell kenn ku ne war ngaa dund dund kóolute kenn ku nekk war ngaa dund dund jàmm nekk ci sa jàmm ndax yàlla moo la ko may ci loolu nag la yàlla di yëkkale yëkkatee ab civilisation boo xam ne ñu am kóolute la ñuy doon di dund ci aw yiw aku jàpp ndal ak xéewal yu baree bari bu yëpp tege woon ci yoon rek nit ñi mën a dund ci ay xéewal nit ñi mën a dund ci dignité wax naa ne bu doomu aadama xiifee rek moroomum doomu aadamaam moo ci dugal loxoom waaye yàlla waajal na léppi doomu aadama jox ko xel mu mat sëkk itam am xel moom faawu yàlla yërmande yàlla ak man-manam a xam-xamam faaw mu wëlbatil la la war a baax won la ko won la safaan ba itam la lay jàddale kay jëlee ci yaa koy yóbbee sa bopp waaye am xel moom mi la yàlla jox xéewal la goo xam ne faw mu won la lu baax ak yoon wa nga xam ne boo ci jaaree réussir waaye boo ci jaarul nag yow la loolu moo tax itam lislaam tëral ay yoon yoo xam ne ngir sàmm nit ki ba du jàdd jëm fenn ci fu mu wërta jëm la waaye itam jàpp jigéen ki nga xam ne moom la yàlla boole ak góor jox ko daraja yu kawe kawe daganalal doomu aadama ci boppam la mu war a lekk ak la mu war a naan la nga xam ne dëgganul ci moom mu tere ko ko te lépp lu yàlla tere daraa tax lépp lu mu digle njariña nga ca lépp lu mu tere lora nga ca moom yàlla subhaanahu wa taala ci biir loolu la lañu yàlla leerale àq ñaari wayjur ak warteef yi nga xam ne moo am ci diggante wayjur yi ak ñañu jur kon ci loolu mooy bunt bi nga xamante ni bi mooy dëgg-dëggi ni doom aadama nib jullit war a ci loolu lañu fas yéene waxtaane tey incha allahu su ko defee kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne moo digal mboolem waxambaane yi mboolem góor ñi nga xam ne mën nañoo denc soxna ñu denc soxna li ñuy tuddee ak waxambaane walla képp koo xam ne denculoo soxna rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na boo ko mënee na nga ko def ngir illa ji nga xam ne moo tax moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne yaa machara sabaabi man istataa minkum albaata falyatazawaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yéen ñi nga xam ne yéenay waxambaane yi waxambaane it mag ñi amul soxna dugg nañ ci biir képp koo xam ne man nga ko muy mën a denc soxna nanga nga daal di wut soxna denc mu mel ne tey duñ ko laaj illa ji lan moo tax mu ne fa innahu axaddu lil basar wa axsanu lil faraj ndax doomu aadama moom faaw doomu aadama rek la moo gën a sàmm ci sab gis gën a sàmm ci say cër itam kon képp koo xam ne mën nga ko nanga nga denc soxna man gi nag mooy man ci alal man ci wér gi yaram maanaa man ab kàttanu sëy loolu mooy man gi mooy albaa fal yatazawaj ku ko man kon na nga denc soxna bu dee jigéeno it mooy na nga am boroom kër ndax fa innahu axaddu lil basar moo tax nit ki mën a téyeb gisam mën a téyeb xelam mën bànneexam waaye itam wa ahsanu far ji moo gën a ñoŋal nit ki ci ay cëram ba ay jàngoro du ko dugg ak yeneen loo xam ne warta ci moom loolu mooy kii man wa man lam yastati koo xam ne nag mën mënul loolu mënta denc soxna ci moo xam na mu ko tëlee kon fa alayhi bi sawmi fa innahu lahu wija yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na koo xam ne kon mënoo amoo kàttanu denc moo xam ci fisik la wala alal la nee na kon nanga nga koor ndax koor gi moo gën ci nit ki moo gën a sàmm moo gën a mën a yar nit koor moo gën a mën a yar nit kon jullit bi war naa bàyyi xel xadis boobu bu rëy rëy wax rawante na waxambaane yi nga xam ne dañuy néggandiku ci wàllu sëy te mën naa am nëggandiku boobu yàgg ba diggante bi nga def lu neexul yàlla kon saaboo boo ko manee rek na nga denc bokk na ci li nga xam ne lu am solo la moo di li ñuy tuddee al ihsaanu muy sengewu sengewu mooy ñag sa bopp bu ñu nee sengewu nag mooy nit ki ñag boppam ci tàbbi ci ay rëcc-rëcc wala tàbbi ci ay jikko yu ñaaw walla jëf yu ñaaw te sengewu mooy li nga xam ne moo la mën a fegul sa bopp moo tax yàlla subhaanahu wa taala yu tey yu dagan yaa ngi nii kat bu leen dugg mukk ci lu xaraam li te yàlla jël marchandise mu baax mi tegal leen ci seen kanam bu leen ko fi bàyyi di jëm ci leneen moo tax yàlla subhaanahu wa taala di wax ne al yawma uxilla lakum altayibaatu wa taamu alladina utu alkitaaba xillun lakum wa taamukum xillun lahum walmuxsanaatu min almuminaati walmuxsanaatu من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي أغضان yàlla subhaanahu wa taala nee na yàlla daganal na leen yu tey yi ci seen kanam jëfandikoo leen ko tabayi yu xaram yi tey ñi nga xam ne bokk leen diine te ñu ahlul kitaab mooy yahood yi ak nasaraan yi kat yen seenu ñam dagan na ci ñoom ñoom itam seenu ñam dagan na ci yéen bu ñu rendee ci seen diine man ngeen koo lekk yéen it bu ngeen rendee ci seen diine ñoom mën nañ koo lekk waaye su ko defee itam jigéen ñi ñoom it yàlla nee na yu tey yaa ngi noonu denc leen ci soxna yooyu nga xam ne ñu fegu lañu ñu am jikko yu rafet lañu moo di al muhsanaatu min al muminaati wal muhsanaatu min alladina utul kitab jigéeni jullit ñi nga xam ne yéen a bokk aada wala yéen a bokk dëkk wala yéen a bokk société man ngeen a tànn ca ñoom denc muy lu dagan te bala ngeen di dugg ci lu xaraam su fekkente ne itam ñooña bariwuñ fa wala ñu leen wal muxsanaatu min alladina utul kitaab yaa ngi fi ñi nga xam ne itam ci jeneen diine lañ nekk waaye ñu ñu xam ci yu rafet lañ ak fegu ñooña it man geen caa tànn denc ca kon lislaam ubbil na bunt nit ki yàlla ubbil na bunt yi nit ki nga xam ne bu bañee mooy yàlla bu bañee def lu neexut yàlla mën na caa jaar kon daal denc ci soxna farata doon ci nit ki nga xam ne ragal na ci boppam jàdd fenn wala def na ko su neexut yool lu neexut yàlla moo tax yàlla ne kon yu dagan yaa ngi ñiita tey boo bëggee ci jigéeni jullit ñi mën nga caa tag boo bëggee itam ci jigéen ñi nga xam ne chrétien lañ wala catholique mën nga caa denc kon loolu moo gën loolu la yàlla wax ne ida aataytumuhunna na muxsiniina gayra musaafixiina wala muttaxidi axdaan jigéen ñi nga xam ne jàpp ngeen ne ñu fegu lañ jàpp ngeen ne ñu aar seen bopp lañ na ngeen leen joxu can la nga xam ne mooy daganal seenu diggante te ñooña lew leen domm loolu mooy jigéen ñi nga xam ne ñu seetlu ñu laab lañ jigéen ñooñu kat mooy ñi nga xam ne tey ci la jullit bi war a takk bu ñu leen takk dencee itam jigéen ñooñu yàlla ne leen aaral naa leen sama bopp kat jigéen ju góor góorlu ci diineem ba fegu kenn nag waratu koo teg ci moom baat bu ñaaw kenn waratu ca njortu jot lu ñaaw moo tax mu ne maa leen di aaral seen bopp yéen jigéen ñi nga xam ne da ngeen góor góorgóorlu ci fegu seen bopp moo tax yàlla ne walladina yarmuuna al muxsanaati summa lam ya'tu bi arbaati shuhada fajliduhum thamanina jalda yàlla subhaanahu wa taala nee na góor ñi jigéen ñi jéem a góorgóorlu ci seen diine di julli di woor di tudd yàlla di jàng alquran di muur seen bopp ñooñu bu leen kenn laal bu leen kenn teg ci ñoom tuuma joo xamante ne bii tuuma ju ñaaw la képp koo xam ne sànni nga leen tuuma ci ne gis naa mu def dàngam wala day taxawaal wala day lii te kooku amul firnde yu wóor mooy lu mat ñeenti seede su fekkee deful loolu fàjj fajili doohum samaaniina janda nañu leen dóor juróom-ñett fukki yar ndax dañoo tooñ ay jàmbur te it wala taqbalu lahum shahaadata abadan kooku ki ku ku xës wax loolu maanaam maanaam xas nga jigéen kooku mëtatul seere benn yoon te it dañ ko war a dóor juróom-ñett fukki yar mëtatu seere mooy lépp lu ñuy seereloo ci lislaam moom bokkatu ca ndax dafa wax loo xam ne andiwul ay seere kon képp ku tuumaal jigéen ci ne day taxawaal wala gis naa mu yeef ndàngam te andiwoo ay seere yàlla nee na nañ la dóor juróom-ñett fukki yar ba noppi fu ñuy wutati seere yow matatoo seere ci loolu wa ulaa'ika humul faasiqoon ba tey ñu jàpp ne yow ci faasiq yi nga bokk maanaam ci kàccoor yi nga jikkoy kàccoor lañ lay askanale moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne ijtanibu sab'al mubiqaat na ngeen moytandiku juróom-ñaari flagrant délit yi nga xam ne képp ku ci togg benn rek togg nga bakkaar gu rëy rëy juróom-ñaari yëf a ngi nii yoo xam ne daal ëpp na ko sax ndaxam waaye yii daal moom ëpp naa tàggoo ci ab jullit ëpp naa jéem a def ci ab jullit moo tax mu ne ijtanibu sab'al mubiqaat na ngeen moytandiku juróom-ñaari yëf yi nga xam ne yu bon la yoo xam ne bokk na ci bàkkaar yu mag yi saxaaba yi de ko wa ma hunna ya rasulallah yooyu ñooy ñan yow yonante bi juróom-ñaari yëf yooyu jàppal sa baaraam bi ci njëkk moo di ashirku billah moo di bokkaale ak yàlla subhaanahu wa gis nga bokkaale ni mu rëyee bokkaale ni muy sippee jëf bokkaale ni muy yóbboo nit ëllëg sawara bokkaale ni ko yàlla bañee moo tax mu jiital ko ne ashirku billah mooy bokkaaleeg yàlla bokkaaleeg yàlla ci jaamoom gi bokkaaleeg yàlla ci meloom yi bokkaaleeg yàlla itam ci nguur gi mu nekk buur nga di ko wutal beneen buur loolu moo di bokkaale muy benn wasixru ak njabar njabar dafa bokk ci ñàkk gëm yàlla moo tax mu ne na ngeen ko moytu na ngeen ko moytoo def na ngeen ko moytoo dikkal maanaam di ca dem mbaa nga di ko def yooyu yépp ñoo bokk ci bàkkaar yu mag yi la bokk muy ñaar nga teg ca ban mu di wa qatlu nafsi allati harrama allah ak rey bakkan boo xam ne yàlla daa xaraamal ku ko rey rey bakkan yàlla rek moo sañee dogalub àtte ci ki nga xam ne tuuma ya daje na ca moom tamit lu wér lislaam rey ko waaye lu dul loolu kenn sañu te rey bakkanu doomu aadama kon da ngeen moytu moo xam bu jullit bi la wala kiditub jullit kenn sëyut rey bàkkan boobu doomu aadama te du lislaama ko reylu kon loolu bokk na ci bàkkaar yu mag yi ak ban mu ne wa aklu riba ak lekk riba riba lu rëy rëy la riba dafa mel ne nit ki lekk sawara ci biiram riba dafay ñaawal alal riba day tax alal ji du barkeel day taxit bu ëllëgee yàlla topp ca bakkaar yi dul jeex kon na ngeen moytu riba beneen bi ci topp moo di wa aklu maalil yatim ak lekk alali jirim nañu moytandiku lekk alali jirim jirim mooy gone gu ndaw gi nga xam ne juróom dafa génn àdduna ñu dénk la ab donoom ca ay way waajuram ngir bu màggee mën koo jariñoo nga sànk alal ja mbaa nga def ca lenn loo xamante ni bi bu màggee du fa fekk dara mbaa du fa fekk lu bari loolu moo di lekk alali jirim lislaam da ko moytandikuloo bu baax kon bokk na ci bàkkaar yu mag yi beneen bi ci topp moo di ma sax fi bis boo xam ne lislaam dafa soxla ay góor yàlla yu ko défendre dafa soxla ay nit ñoo xam ne ñoo taxaw tey ñu nar leen a tooñ nar leen a néewal doole nga ne meng daw ne man duma xeex duma ca bokk loolu bokk na ci bàkkaar yu mag yi beneen bi ci des mooy bi ñu doon wax léegi ci jigéen ñi moo di wax lu xadful muxsanaati l muminaat al xaafilaat ak xas jullit ñi nga xam ne jullit yu jigéen la nit koo xam ne ma nga toog ca këram di liggéeyub liggéeyam yorum njabootam nga boole ko ca borom jikko yu ñaaw yaak ñay taxawaalu loolu bokk na ci bàkkaar yu mag yi kon kenn wërta xas jigéen kenn wërta yi tam góor ne gis naa ko mu def nangam wala gis naa ko mu def nangam xadis boobu buxaari yu moo ko nettali ak muslim kon mbokk yi loolu moo di juróom-ñaar yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na ngeen ko moytu moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba tey digal waxambaane yi ne leen na ngeen séngawu sengewu mooy buñ ko doon wax ci wolof moo di nit ki tabax ba muy tabax mu wër ko defal ko tata joo xam ne dara du ko mën a bëtt loolu mooy sengewu loolu mooy nit ki denc soxna moo tax yonent bi ne yaa machara shababi man istataa minkum albaata falyatazawaj fa innahu agaddu lil basar wa axsanu lil farj ku ko man dencal soxna toog jàpp si njàmbur liggéey sa liggéey jaamu yàlla ci sa soxna loolu moo tax mu ne na ku ko mën nga takk soxna nekki noonu la itam ku ko mën nga am boroom kër bu fekkee jigéen ji la waaye di néglu ak séegut walla ngay dégg ko ak séegut te diggante bi yàlla mën na la ci mën nga cee dugg ci seytaane loolu bokk teg li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax su ko defee nag li ñuy tudde ixtiyaaru zawja doo ko ñëw muy tànn soxna nit ki itam bu waree takk soxna war naa tànn ki muy takk mooy kan nit ki bu waree sëy itam war naa tànn góor gi muy takk moo góor koy takk mooy kan loolu moo tax yàlla subhaanahu wa taala di wax ne wa min ayaatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwaajan li taskunu ilayha wa jacala baynakum mawaddatan wa raxma inna fi dalika la ayatin li qawmin yatafakkaruun yàlla nee na ba fa bokk ci kiimaani yàlla yi ak bind lu kenn mënta bind ak def lu kenn deful moo di an xalaxalakum min anfusikum azwajan yàlla mi leen def ngeen di góor ak jigéen di dencante kenn du fa bàyyi doomu aadama di sëyeg weneen mala wala ngay sëyeg yeneen jëmm judut doomu aadama moo tax yàlla ne man maa leen def kuy sëy sa moroom ngay sëyal moo xam góor gi la wala jigéen ji tey li taskunoo ilayha ngir ngeen kenn ku ne dallu ca moroom ja kenn ku ne dallu ca moroom ji waaye rawante na góor gi nag nga xam ne moom lañ sant ko demal wuti demal liggéeyi jigéen ji ne ci kër gi ñu ne góor gi ñëwal li taskuna ilayha ngir nga noppalu ci kër gi boo ñëwee fekk ñu defaral la ñam wi fekk ñu defaral la kër géeg néeg bi loolu mooy li taskuna ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma yàlla nee na ma def di di nekk googu kat muy société boobu muy ñaari kanu yi nga xam ne bu ko lalut bu ne société ba du dëgër moo di almawaddatu wa rahma moo di cofeel moo di mbëggeel ak yërmande mbëggeel ak yërmande mbëggeel ku ne xam na ne ci jigéen lay ëppee waaye yërmande yitam ci góor la war a ëppee nag moom itam mu yërëm ko ki nga xam ne mooy jigéen ji jigéen mooy ëpp xolub yërmande ci góor ba ca doom ja muy jur ak ki nga xam ne moo di borom këram waaye itam góor gi war a am nag yërmande ju yaato yaatu ndax inna fi dalika la ayatin li qawmi yatafakkaruun nee na kuy xalaat nag di xalaat ci mbir yooyu le bu baax da nga gis ne xéewal la gu yàlla def nga nekk ak sa moroomum jullit ngeen faxe ba mën a composé ci ay jikko ki melo fexe ba mën a composé ci cofeel ak ak ak yërëmante loolu lu yàlla def la muy du am solo yàlla moo def maanaam dëkkuwaay mu bokk ci bagage yi àdduna yi kenn nit du dëkk moom dong faw nga dëkk ko nit moo tax mu dee góor gi wala jigéen ji yàlla ne la wutal koo dëkkal nag koo xam ne moom ngay séddoo moom sa dund te loolu ngeen teg ko ci rahmatan bayna al qalbayni mu mutahabbayni ngir yërmaande ju ngeen boole seen ñaari xol yi def ko muy xol yu ubbeeku xol yu leer te teg ko ci shari'a bi nga xamante ne bii moo di li yàlla santaane kon bu ñu ñëwee ci tànn jëkkër wala tànn soxna bi ci jëkk moo di na tànn koo xam ne borom diine la awalan ad diinu ndax kat fa huwa al asaasu al awalu ixtiyaar tànn bi nga war a njëkk tànn mooy seet diine ja ba xam ko am diine la am déet bu fa diine nekkul lu nekk mën naa yàqu lu nekk mën naa sikk ci sëy bi waaye diine ju sell bu fa nekkee lu ne mën na faa des nag lu ne mën na faa toog lu ne mënees na koo defaraat kon bi ci njëkk moo di diine nekki noon la itam lépp loo xamante ni bii soxna si moom it noonu lay tànnee ci góor gi ba ca njëkk moo di diine diine moom bu fa nekkee lépp jag waaye bu fa dara nekkut dara dootu fa jeex ab taar dootu sax alal dootu fa sax maanaam bokk ci yax bu rëy itam dootu fa ne dootu dëgër bu fekkente ne diine moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne tunkaxul maratu li arbain jigéen daal buñ ko dee takk ci ñeent yëf yii lañ koy takke limaaliha ndax ku am alal ki ngay njëkk a tànn seet ca moom ndax yor na daraam déet wali xasabiha ndax ci yax bu rëy la bokk walla déet wali jamaaliha ndax ku taaru la koo xam ne moo gën a rafet ñépp wali diiniha ndax borom diine la joo xam ne lu ko yàlla wërsëgale mu jàpp ci di téyew làmmiñam di muñal borom këram waaye di muñal jëkkër jabaram itam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ñeent yi kan lu ci nekk nit dana ci takk jabar waaye nag la leen di dénk moo di fa var bi daati diini taribat ya daal yow bu ñett bu ñeent ñi rangee tànnal borom diine ja yow nga jël ko soo ko defee day dala rëccatu la dara jombatu la boo seetee borom diine ja nga takk ko dara jombatu la waaye bari na ñoo xam ne nag dañuy ñàkk a seetlu loolu seet ka nga xam ne fa la seen bëgg-bëgg toll rek ñu ne kee mooy waaja waaye loolu bokkut ak li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax moo tax mu ne fas fasfar bi daati diini taribat ya daag kon loolu mooy tànn gi ci ay jikko waaye tànn gi ci diine itam kenn warta tëb-tëb rek maanaam jël jëliinu jabar wala jëliinu jëkkër woo xam ne xamoo diineem xamoo nan la mel ci diineem loolu lay indi ay jafe-jafe rek beneen ba ca topp moo di denc soxna bu ñu ko dee def itam lépp dafa war a tege ci ak jaamu yàlla ak wéye ndigalul yàlla mooy tax mu amul mujj mooy tax barke feeñ ca kon bokk na ca la tax itam nit ki di denc soxna mooy li ñuy tuddee al injaabu mooy fexe ba amul njaboot amul njaboot moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax ne tazawwajul tazawwajul waduudal walud fa inni mukathirun bikumul umama yowma alqiyama yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na na ngeen denc jigéen ñi am xol bu yaatu am ak yërmandeku yaatooku laabiir waaye itam jigéen ñi nga xamante ne bii dañuy nangoo amul njaboot jigéen ñi am gerte lañuy doon tànn leen ñaar ñooñu le ki nga xam ne moo di alwadud day amuk cofeel bu baax a baax moo di li ñuy tudde assamaaha dafay feeñ ci xar kanamam jikkoom yomba jubbanti am xelam yomba jubbanti léppam yomba jubbanti loolu moo tax mu ne al wadudal walud jigéen bu soppee yaatu dënn xol ba woyof dana yomba jubbanti dana yomba jàngal diineem dana yomba waar yitam dana xër lool yitam ci wut ngërëmal borom këram waaye kooku daal la ne na ngeen tànn jigéen ji nga xam ne ku nangoo am doom lay doon ku am ngirti lay doon ndax kat boo liggéey yowmal xiyaam sama xeet wi dama bëgg fi ñuy wootee xeet yi rek ma ëppale fa aw nit ëppale fa mbooloo loolu kon moo tax mu ne na ngeen denc ci ñi nga xam ne dañuy am soxna te bañ koo def jamono jii rek am benn doom wala ñaar ne sonn naa daal di dem wuti luy tee nga amati doom mën naa am sa boroom kër bëggu ko yow mi ci sa bopp yi itam sax waroo koo bëgg waaye bëggum noof lay rek la loolu lislaam daf koy tere kon nit ki wërta te a damm am juróom lu may nga xam ne wér-gi-yaramam daf caa taxaw docteur bi ne ko soo amatee doom nangam ak nangam loolu rek a mën a tax nit kii war a mën a arrêté am njuram wala taxawal am njuram kon loolu moo tax yonent bi ne tazawwaju aluudal waluud da ngeen denc ñi nga xam ne ñu amuk cofeel lañ ñu am xol bu yaatu lañ nangoo wut ngërëmal seen jëkkër waaye toyyi ba du ñu rëy ba du ñu defal dara seen borom kër du ñu def dara ci seen kër moo tax kon des na sopp bu baax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na sopp nañu soo ko mënee booy denc soxna nag nga denc gone soo ko mënee sudul loolu itam nga denc mag moo xam ne borom jikko la bokk na ci itam li nga xam ne li ñuy taamale ci denc mooy dencante koo xam ne seeni at sorewut seeni at sorewut doonte yaa ko mag wala moo la mag waaye at ya bañ a sore bokk na ci li ñuy taamu itam maanaam seen euh, xam-xam wala seenu yewwute wala seeni jikko xaw a màcc tuuti loolu bokk na ci li nga xam ne dana tax sëy bi bu amee ba nopp itam mën a dëgër bu amee mën a sax ak déggoo mën caa am waaye ñàkk a màcc ci ay doxaliin ak xel ak jëf ak jublu mën naa indi ay jafe-jafe moo tax yooyu yëpp sopp nañ ko ca niki noon la itam li nga xam ne moo di li ñuy tudde al istibra te mooy laablu nit warut a dégg gis jigéen rek daal di ne nañ ma ko may ñu xëy suba teel wala ca beneen bis daal di dem maye ko te defuñu li ñuy tudde laablu laablu mooy faw war nañoo xool tolluwaayu jigéen ji ba xam wéet na ci maanaam ñàkk na yi nga xam ne mooy gàllankoor yi tax ñu war koo mën a takk jigéen mën naa jóge ci ab say démb wala bëkk démb képp te fekk dafa war a iddewu mu nga laaj ko mu ne la ooma jëkkër wala tas naa wala amatuma jëkkër nga daal di defe ne ñaari fan ñett wala ay bis manees na la ko may fekk na ma nga cee diirub iddaam loolu boo ko takkee takk ba dëggandu ndax dangaa takk jigéen ci biir iddaam war ngaa xaar ba idda ji jeex nga doog koo labat ñu may la ko loolu mooy nit ki itam ñu xam ne kon diisu ko jël noonu rek te gëstuwuñ ko war ngaa xool ba xam itam dafa ëmb ba xam ëmb ba ci kam ko jële nan la demee moom loolu la ñuy tuddee laablu ak la ca war yëpp boo demee ci buntu bi idda ak talaax ak al istibra yooyu yëpp da ko ci fekk ci yaatal bu yaato yaatu niki noonu la itam ab sëy bu ñu koy takk bu nekk ñu xam ne faw war naa am ñu ko teewe na war naa am lu mat ñaari góor mbaa lu ko ëpp ñoo xam ne ñooy fekke fa ñuy fase sëy ba ñaari góor mbaa lu ko ëpp ñu seere sëy boobee fekk ne diw ñaan na may nañ ko soxna loolu la ñuy tudde seere ci jamono ji léeg la nga dégg kuy laaj eh, mbirum takkub suuf takkub suuf daanaka mënees naa wax ni amut wala bu amee du dagan li ñuy tudde takkub suuf na mën na ko bañ a doon ndax bu fekkente ne da am ñeenti nit wala ñaar mbaa ñett ñu dem ci genn kër takk fa soxna ñooña yëg ko soxna saa kañu may soxna yëgal ko ay bokkam ñañ ko war a yëgal loolu du takkub suuf donte waa mbedd ma yëguñu ko wala waa dëkk ba loolu du takkub suuf takkub suuf mooy yéen ñaar kese keneen ñetteelu leen ngeen di lijjanti seen mbir ba doxal seenub sëy te kenn yëgu ko loolu mooy takkub suuf dafa xaram takk ba dëgganul te baaxul itam loolu nag defe naa ne bëriwut ñaari nit ñaar daal ñu ne may na may may ma sa bopp mu ne ko may naa la sama bopp wala nuñ ko mën a jëfee ba ñoom ñaar dong ñu yëg ko loolu la ñuy tuddee dëgg dëgg tàkku suuf amaa lu waa dëkk bi yëgut wala lu waa quartier bi yëgut waaye teewut ay nit teew woon nañ ko loola tudd takku suuf ndax li am solo mooy bu ko ñaari góor fekkee jëm ci lu ko ëpp rek ñu seere ñaan ga ak may ga loola kon sëy ba am na kon loolu nekkatul takk suuf takk bu wér la takk bu lislaam nangu la nekk la itam seere soosu nag ak maye googu ñuy maye dafa bokk ci al arkaanul asaasiya yi nga xam ne munta ñàkk ci sëy faaw mooy tax sëy bi dagan faaw aw nit toog nit ñaan nit may ko ak ña ko fekke sëy ba doog a mën a dagan loolu moo tax kon danañu ci sart ci seere soo ñoo ñi nga xam ne ñooy toog fekk sëy ba na doon ñoo xam ne boroom xel lañ ay dof matuñu seere na doon yitam moo xam ne mu kàllaf lañ gone matul seere na doon ay gor itam ab jaam matul seere ca jaam amee ci jamono boobu boobule euh, loolu mooy seere si nga xam ne bu ñu ko defee ci diggante ñaar ñiy fas sëy bi su boobaa sëy ba dog na su boobaa sëy ba am na mu nag itam sëy bi na am kilifa moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne laa nikaaxa illa bi waliyin wa shaahiday adlin amul benn sëy boo xam ne dana walaabal lu may sëy ba am kilifa ak ñaari seere yu maandu bu ko ëppee nag ba tey baax na dañuy sopp nag mu ëpp ko lool bu fa mënee am ca jàkka ja niñ ko baaxoo defe rek toog leen xaar dafa am ku ñuy fasal wala ku ñuy nàngam mbooloo ma fekk ndax dañoo wax ne mat seere léegi dafa yombut moo tax lu nit ñu gën a bari rek yombut kon ñaar ñi nga soxla dana ci am muy ñaar ñu maandu kon loolu saa bu amee rek sëy ba dagan na waaye li ñuy tuddee wàll yi nag mooy ki nga xam ne mooy kilifa soxna si mënut a ñàkk moo xam baayam la moo xam baayam bu ndaw la moo xam magam bu góor la ñii ñooy kilifa yi nga xam ne bu ñu fekkee sëy bi wala ñu ànd ci sëy ba baax walla ilimaan ja nga xam ne moom la jox boppam bu fekkee ñooña nekku fa ñooñu ñoo di ay kilifaam ka mu jël mbiram teg ko ca loxoom ñooñu ku mu ci man di doon la muy tekki moo di kilifa am na ki noonu la itam sopp nañu bu takk amee ñu yëgle ko ndax dañuy daw tuuma moo tax bëgg nañ bu takk gi amee rek ñu yëglu ko doon te yëgaluñ ko dëkk bépp ñu yëgal ko ñañ ko war a yëg loolu lañuy tuddee yëgle ab sëy muy feeñal ko ci kanam nit ñi loolu nag sunna la ci lislaam ndax jële nañ ci aïsatu radiallahu anha mu ne yonent bi alayhi salaatu nee na aclinuu hada annikaaxa wajcaluuhu fi lmasajid wadribuu alayhi dufuuf yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yëgle leen seen takkum soxna mii te ngeen defe ko ca jàkka ja tey bu leen neexee nag tëgg ndax bis boobu bisu feet na waaye yëgle googu itam li muy tekki moo di diw moom may nañ ko diw diwit diw lañ ko may kon kenn amatu cay wax wala loo cay def mbaa loo cay dindi loolu li muy tekki mooy ñaar ñooñu dugg na ci buumuk dencent moo tax mu ne na ngeen ko yëgle te it defe ko ca jàkka ja lañ ci jublu mooy mbooloo ma ak séentu fa barke nag waaye itam wadribu alayhi dufuuf na ngeen tëgg tabale yi nag ngir ñu xam ne diw may nañ ko diw loolu mooy e, cosaanul sëy loolu moo tax ñu daganal maanaam am po lu mel ne tëgg ak fecc ak yépp ci bisub sëy nag ngir yëgle gi ak xemmeem loo ñi nga xam ne ñoo dencagut ñu xemmeem loolu lépp politique gu lislaam la bokk na ci itam yàlla di santaane di dénkaane ñi nga xam ne ñoo di al ayaama mooy jaamam ñi nga xam ne yàlla leen nattoo ñu ñàkk jëkkër jaamam ñi nga xam ne yàllaa leen nattoo amaguñ jëkkër ba léegi te toog fi at yu baree bari amaguñ borom kër kon mbokk yi képp koo xam ne amagoo borom kër wala koo xam ne amagoo soxna itam bu la ko sa jàppandal mayee nga sàkk ko ndax yàlla subhaanahu wa taala moo digle ci alquran bi tas taswijil ayaama nee na nañu denc ci mag ñi denc ci ñi nga xam ne amuñu ay boroomi kër ngir loolu man leen a séngewuloo maanaam man leen a aar ba duñu dugg ci leneen waaye itam man leen a aar ba lépp lu leen rëccoon ci seen wàllu néegub sa itam ñu mën a am euh, fu ñu ko amee moo tax yàlla subhaanahu wa di wax ne wa ankihul ayaama minkum denc leen ci soxna yu mag yi teel yi ñàkkoon boroom kër moo xam anamu tàggoo la wala anamu jëkkër ju faatu la génn àdduna yooyu yépp wasaalixiina min ibaadikum wa ibaa'ikum in yakunu fuqaraa yugnihum allahu min fadli wallahu waasiun alim yàlla subhaanahu wa taala nee na ñoo ñi nga xam ne nag dem nañ ba jëm ci mag bu ñu seen tooti fenn alal nag ak lu ñu leen di defal ak appartement bu ñu leen di méebal yooyu yépp waaye nag in yakunu fuqaraa yughnihumullah bu fekkente ne alal ak man-man dafaa nekk itam nag na ngeen xam ne yàlla moom ku bari wërsëg la wallahu waasiun alim yàllaa leen di jox ci wërsëgale luñ gën a lu ñu mën a dundoo te ñu doylu nag nañu doylu te xam ne nekk ci buumug sëy day farata waaye day tax nit ki aaru itam kon nañu jéem a dugal seen bopp ci buumug sëy te bañ caa andeeti yenn sart nag képp koo xam ne gis nga ko muy as gor di jullit mana na séq ak yow kóllëre ak ngor ak nga séq kook moom ci wàllu néegub sëy moo tax yàlla ne wa ankixul ayaama denc leen ci mag ñi nga xam ne dañoo bokk dañoo ñàkk boroom kër nag ni ki la itam li ci nekk moo di iffatun ak fegoo nga ca gu wér a wér ci mag ñi ak gone yépp waaye itam salaahun lil mujtama al yi ngir maanaam société bi dëgër ba ay tuuma du ci génn ñu naan diw dañuy def leeg wala lii nangam ak nangam yooyu yëpp man cee ñàkk mu nekk mujtama nekk société boo xam ne kenn ku ne yaa ngi am koy wéeru ca moom am kuy wéeru ci yow itam moo tax eh, denc ñi nga xam ne ñoo di ñi ñàkk borom kër te teguñu ko seen bopp yàlla moo leen ko teg loolu wax nañ ne bokk na ci sax maanaam bu ñuy joxe asaka war nañ caa jox ñi nga xam ne mënuñoo denc soxna ngir ñàkk ko ba ñu denc ca mag ñoo ñële denc ca ñooñee nga xam ne ñoo amuti borom kër wa fi sabilillahi lenn ci boroom xam-xam yi dugal na ko ci ñoom ci loolu lu tax li anna jua al batni yaxfiru ila ila ila al ixlaali bi am bi amnil mujtama dañuy wax ne xiifu biir xiif ci sa wàllu biir nga xam ne soxla loo lekk la loolu bu fekkee nit ñi dañ ko def rek yàqu société bi la waaye juuxul farji nag maanaam xiif ci sa pëy loolu yitam yàqu xeet la ngir ñàkk a fegu mujtama bi ba yu baree bari di fi dugg ak jëf yu ñaaw yoo xam ne waru fi woon a am kon nit ku nekk rek war naa am foo xamante ne bii fa lay feesale biiram waaye itam fa lay dabe xam bi nga xam ne moom la ko yàlla jox niki noonu la itam bokk na ci li tax ma bi tax yàlla daganal taaddudu zawjaat muy soxna yu bari bañ a yem ci kenn mbaa ñaar bokk na ci yéene mag ñi nga xamante ne bi seeni borom kër dañoo génn àdduna wala dañoo tàggoo ci lu ñu tëyut ñooñee mën a amaat ay boroomi kër ngir ñoom itam wéy ci seen néegub sëy bu fekkoonte ne kenn ku nekk ci kenn rek nga yem ku xas tas dootoo am beneen boroom kër kon dana bari ñoo xam ne danañ sonn lool ci anam googule te it duñu am nag ëllëgee ku leen denc loolu moo tax mu bokk ci xikma bi nit ki su amee kenn am keneen koo xamante ni bi itam mën na koo yor yor ko suturaal ko te bokk ci jaami yàlla yi te ñu war koo aar jàppale ko mu jël ko boole ko ci njabootam loolu moo tax yàlla boole ko ci loolu nekki noonu la itam boo doon xool ci li ñuy tudde limub ay soxna xoolal yow mi nga xam ne defoo di ndiwoo yàlla la xañ boroom kër keneen ne la dootu la takk lu may waxambaane lay takk wala ku amagul jabar da nga fay toog di xaar koo yi nga xam ne amagul soxna tamuy waxambaane walla dangay gis ku yor kenn ba noppi mën laa boole ci ak njaboot yéene la ci wërsëgam boole la ci ak njabootam loola moo tax kon yàlla daganal ba tey limu soxna yi yow mi nga xam ne yaa ngi ci sa néegub sëy am sa saraka ju jigéen ju toll ci sëy lu yàgg yàgg yàgg nga bëgg koo ko jox te it gisoo kenn ci ndaw ñi koo xam ne ku le ne maa ngi ni du tee nag faaw war gaa xalaat kon borom soxna soo xam ne gis na ko bëgg na ko te mën na koo teral lay sa yéene mooy sa soxna sa rakk jii kat sëyi ak fu man di sëyi kon nit ki li muy bañ war na caa seetlu itam da nga xam ne euh, moo di euh, euh, li nga xam ne mooy jariñ ñëpp nag di jariñ société bi kon loolu bokk na ci li tax limub soxna yàlla daganal ko ngir ñu mën a mott lente gis nañ ne itam limub góor ñi moo gën a néew fuuf mu jigéen ñi lii dee ci góor ñi moo ëpp fuuf lii dee ci jigéen ñi bu fekkonte ne yàlla deful nit ki mu mën a takk ñaar ak ñett ba ñeent su boobaa jigéen ñi dinañ xës bari ba dootu ñu gis góor ñu leen yor mag mi nga xamante ne bi saxaaru ga yanu jëkkër yi daa dem bàyyi ko nu muy def kon day toog di xaar xale bu ndaw boo xam ne pareegut noppeegut amagut kër wala amagut lu mu denc soxna ba kañ kon la jëm waaye yàlla ne la mag aga moo xam ne moom itam denc na kenn waaye man la laa boole kamu mu yor yor loolu moo tax yàlla daganal li nga xam ne moo di denc ñaar ak ñett su ko defee bu ñu dellusee ci li nga xam ne moo di néegub sëy nag li ñuy tuddee al ijaabu wal qabul mënta ñàkk loolu mooy nit ki ni ñaan damay ñaan soxna nit ki ne ko may naa la ñaari baat yi mooy ñaar yi nga xam ne mooy daganal ab diggante mooy daganal diggante ñaari nit ñi nga xam ne mooy tax ñu mën a am relation ci wàllu sëy fawwu ñaan am fawwu maye am loolu rek mooy tax sëy bi mën a am moo tax bu fekkonte ne nit ki def na rek may naa la sama doom bu jigéen bii nga ne nangu naa ko su boobaa sëy ba na may naa la sama doom bu jigéen bii kañ ka ne may nangu naa ko su boobaa kon sëy ba fasu na la ca nag mooy xutba ba waaye donte xutba ba amul itam te ñaan ak may am rek sëy ba moom fasu na ba noppi loolu mooy nangu gi nga xam ne ki ñuy may nangu na ko wala nga ne ko xabaltu zawaajaha nangul naa la ak sëyam su boobaa itam loolu sëy ba fasu na moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mayoon na benn waay jigéen ci ne ko may naa la ko ci li nga am ci alquran ba mu ko laajee laaj amul dara ci alal lu mu ko jox mu ne ko nag alxuraan ji nga mokkal rek loolu doy nag can may naa la ci soxna si kon li ñuy tuddee al ijaabu wal qabul munta ñàkk ndax rukunun fi zawaj ponk la ci ponk yi maanaam denc soxna yi kon faaw loolu am li ñuy tuddee al atu da yonente bi ne woon koo xamante ne mën ngaa denc nanga denc muy baatub al baa al baa mooy xudra muy kattan gi nga xam ne nit ki am na ko ci boppam ci denc soxna ci warteef yi nga xam ne moo koy war ci këram koo xamante ni bii nag amoo lenn loo jox soxna amoo fenn foo ko dëkkal te moom it munta dëkk fenn ndax yoru ko lu may fam ko dëkkal la mën a dëkk te yow amoo ko su boobaa baatu man gi wàcc nekkul ci yow su boobaa kon di kenn du la may kenn nag ndax di su la may koo xam ne itam mënaloo ko dara ci wàllu dëkkuwaay mënaloo koo dimbali ci wàllu dund ak leneen ak leneen loolu moo tax yonente bi ne woon képp koo xam ne man istataa minkumul baata falyatazawaj ku ko man na nga denc soxna muy man gi ci lépp lu la war ci kër gi nga di ko def loolu lañuy ñuy man moo tax yonent bi ne woon man istataa minkumul baata falyatazawaj fa innahu agaddu lil basar wa axsanu lil farji kon loolu mooy baatub albaa ni ki doon la fawu charti takk gi munta ñàkk ci li nga xam ne moo di néegub sëy moo di takk gi nga xam ne mooy takk mooy li ñu waxoon léegi al ijaab wal xabul yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la ko defe woon ci may nit soxna ci ni ñu ko waxe woon léegi ci li nga xam ne moom la am ci alquran jële nañ ci ibnu abbas radiallahu anhu mu ne dafa am nag benn jaariye boo xam ne dafa ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa ah, ne ko man kat sama bàyyi sama jur dafa maa bëgg a may koo xam ne bëgguma ko yonent bi ne ko demal ñu dindi ko ba mu set sama jur dafa maa may koo xam ne bëgguma ko foofu li ñu fiy déggee mooy jigéen nag nu mu mën a mel faaw ñu diisoog moom ci wàllu sëy ba xam bëgg na wala déet ndaxam ci sunu yar ak sunu aada daanañ jël rek diw jox diw walla xëy rek ne ko diw da ngay sëyi yàlla dogal na sëy ba des fa barke am ca waaye lislaam dafa santaane nag ak diisoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ñu ñëwee nit ne ko day man de sama baay dafa ma may diw te it man ki ma may bëgguma ko yonent bi dindi ko ba mu set xadis boobu ahmad netti na ko ak abu daawud ak ibnu maaja kon bu dañuy wax ne bu fekkente ne aji dem ji ndaw la nañu diisoog moom rek ne ko kat dañ lay may diw ndax bëgg nga ko su fekkee daa muñ ñu jàpp ne kon reena bëgg na xaj na daa xamul rek su dee cell itam ñu xam ne jàpp ne bëgg na xaj na dafa am kersa rek waaye su dee bëgguma nag moom ñu xam ne bëggul ñu doxewaat ci yeneen jéego te seet leneen nag loolu moo tax ki nga xam ne mag la itam ah moom nag am na ci loolu moo moom boppam waaye faaw ñu diisoog moom nag moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne athayibu axaqu bi nafsiha min waliyiha nee na mag nag moo gën a yey ci boppam moom dem na ba ñëw xam na li xew mën naa xool kii ñu koy bëgg a may ba xam lam jortu ca moom ak lam yaakaar ci moom su bëggee bëgg na su bëgguti bëgg na waaye wal bikkuru tus ta su bëggee ne may leen ma ay kilifa may ko ko loolu dara nekku ci bu deen xale bu ndaw bi nag moom ñu diisoog moom ci boppam te jàpp ne itam bu noppee ne cell ñu jàpp ne nangu na waaye bu dee nag ki nga xam ne mag la moom faaw mu leeral nañ ñi ne man bëgg naa bu wér wala mu ne bëgguma bu wër ñu doog koo mën a maye ndax magum jëmm la loolu kon bokk na ci li nga xam ne ci sarti sëy li ñuy tuddee at tabarruk muy barkeelu ab néegub sëy wala sëy bu ñuy doog a fas dañ cay ñaan barke yàlla def ca barke ab jullit buy ñaan la tekki mooy wéeru na ci boroomam mi ko bind di sàkku ndimbama ci anam yépp nag ci kaw bu jafe-jafe dikkee ak ci kaw yitam bu leneen ñëwee mu man koo yanu ci kaw muñ moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bari na ay ñaan yu mu indi lool ci ngeen xam ne ginnaaw sëy moom mooy benn xaaju diine nit ki beneen xaaj bi ci des nag mu war caa góorlu moo tax lislaam sunnal ñaan ñaanal nit ñooñu le waaye moom ci bopp mi te mu ñaan yonente bi alayhi salaatu wasalaam daana def bu ñu masaa may nit soxna mu ne baarakallahu laka wa baaraka alayka wa jamaa baynakuma fi l xayri daana wax ne yàlla na yàlla barkeel la yow ku góor yal na yàlla barkeel leen li ngeen am itam te barkeel la la cay juddoo waaye yal na yàlla boole leen ci aw yiw mooy yal na leen yàlla defal sëy bu barkeel loolu ay ñaan la yoo xam ne dana tax barke wàcc ci sëy ba ñu ko waxewoon léegi ci lu mel ne ba tey limub ay soxna góor nag yàllaa ko ko rëddal nag sëñ naa am ñaari soxna ba ñett ba ñeent loolu mooy li nga xam ne yàllaa ko ko may waaye lay tax mu mën koo amit nag yàlla daf caa gàllub yar akub sart sart ba moo di mu mën a maandu ci diggante soxna yi ki mënta maandu moom kenn waxu ko mu takk ñaar waxuma laa ñett moo tax yàlla di wax ne wa id xiftum an laa tuqsitu fi lyataama fankixu ma taaba lakum min an nisa mathna wa sulaasa wa rubaa su fekkente ne man ngeen a maandu ci seen diggante soxna kon man ngeen a takk ñaar ba ñett ba ñeent wa in xiftum an laa taadilu su ngeen ragalee képp waxuma la nag nga def ko moom waaye boo boo jortee képp ne munoo maandu fa waaxidatan boo jortee ne munoo maandu képp kon yemal ci kenn loolu la alquran wax ci suratu sa yàlla nee na fa in xiftum fa in xiftum an laa taadilu fa waaxidatan aw ma malakat aymaanukum bu doon ba jébbéer amee nag nga yem ci sa benn soxna ak sa jébbéer rek waaye ba njébéer amatul itam nag yemal ci sa benn soxna ndax mun laa maandu maandu mooy lan yemale leen ci def-def yemale leen ci ay wax ju wax ju yiw bañ a tuuteel kenn ca morom ja waaye itam bañ a yëkkati kenn ci wàllu na nga xam ne noonu la mel rawante na bu fekkee dañoo bokk kër bu dee nag la nga xam ne mooy la la yàlla sédd ci sab xol te mënoo ca lenn sab xol gën a bëgg kee wala mu gën a lëng ca kee loola moom la yonent bi waxoon rek li ma moom daal maa ko moom waaye li yàlla moom nag mu yàllaa ko moom muy xol bi moom fa mu gën a lëng jëm yàlla rek ko xam te mënoo ko dindi waaye liy jëmmi def-def bi nag ci wàllu dëkkuwaay bi ci wàllu dund bi ci wàllu jataay bi ci wàllu ay gi yooyu yépp dafa war a yem képp nag loolu mooy li nga xam ne mooy tax nga mën a takk ñaar mbaa ñett waaye su fekkee ragal ngaa tooñ ndax loolu ak mu lañ koy tuddee muy tooñ jigéen saa boo noppee maandu rek tooñ nga ña nga noppee maandu ca ñoom te loolu lislaam bëggu ko dafay bañ ku tooñ boo ragalee ne mën ngaa tooñ rek kon bu dugg ci ñaar mukk waxuma laa ñett mbaa ñeent kon loolu moo tax ñu ubbi buntu nag li nga xam ne moo di taaddudu zawjaat muy am soxna yu bari te loolu nekk di taraanga ci jigéen ñi waaye itam di nekk ci ak jàpp jàppandal ci ñoom ci wàllu am borom kër nag loolu moo tax lislaam daganal li nga xam ne moo di euh, soxna yu bari ni ki doon la itam xam nga nit ki mën naa am jafe-jafe ci wàllu këram benn soxna bi mu yor xaj na yàlla mënul liggéeyu dogal na mënul liggéeyu kër gi lépp wala tawat dikkal na ko joo xam ne itam soxla woon na ku ko dimbale ci kër gi ak ku sàmm njaboot gi su boobaa kon borom kër bi lislaam jàpp dalal ko foofu ne ko kat demal wuti keneen mu nekk fi bul ko wàcc mukk nag bul ne daa wérut wala mëneesutut te jaxasoog moom walla nangam waaye kon téye ko fa dundal ko yor ko bu fekkee am na fa njaboot gu yor leen te wuti keneen koo xam ne itam nag gannaaw kee mënul loolu ca moom ngay noppaloo loolu moo tax yàlla ne na ngeen takk ay soxna benn ba ñaar ba ñett ba ñeent su ngeen ko banee ni ki noonu la itam mu dellu waxaat ne kat soxna yooyu bu leen leen bu ngeen leen takkee na ngeen xam ne maandute ci wàllu cofeel moom yombut ci kenn ku nekk loo ci xër-xër ci bëgga a maandu itam yàlla mi moom sa xol moom faaw mu lëng am kum jëm noonu la demee itam ci sa njaboot nag boo amoon i doom it faaw am ca koo xam ne nii boo ko nee jàkk na jàkk ñi ca day mel ne kee la yàlla gën a xiirtal waaye loolu yàlla moo koy def moo tax yàlla ne walan tastatiu an taadilu bayna annisa walaw xarastum waaye fala tamilu kulla almayli fa tadaruha kal muallaqati wa in tuslihu wa tattaqu fa inna allaha kaana gafuran rahima yàlla subhaanahu wa taala nee na ndaxam maandu gi ci googu wàll moom du leen yomb sax gaa waaye nag bu ngeen dee jàngit nag jàng ga na doon goo xam ne xol bi yàlla moom la waaye wala tamilu kulal mayli jigéen ñu itam bu leen leen bàyyikat bul ne ca kee bàyyi ka ca des mukk ci genn anam nag na ngeen leen xamal seen diine na ngeen leen jàngal na ngeen leen laabiire waaye na ngeen leen dimbali te yor leen loolu mooy li nga xamante ne bi nit ki war na ko bàyyi xel ci la moom ci boppam ndax yonent bi ne woon na allahuma hada qasmi fii ma am amliku wala tuaxisni fii ma la amliku yàlla kat li nga xam ne moom yaa ko moom muy xol bi yàlla boo ma ci fayantoog man boo ma ci atte waaye li nga xam ne nag moom laa moom moom man nga ma ci atte mooy jëmmi def def moom benn lay doon jëmmi ay gi genn lay doon jëmmi safoo gi itam genn lay doon ni ki noonu la itam bokk na ci li ñuy tuddee njaboot bu fekkee njaboot da caa juddu lislaam na kat njaboot bu juddee ci biir néegub sëy ka nga xamante ni bii moom la yàlla dénk ne ko yoral ma moo di jigéen ji xam ngeen ne gone bu juddoo boo ko joxee baayam muy jooy te noppi boo ko joxee nijaayam muy jooy noppi waaye bu ko yaayam fabee nàmpal ko mu noppi ndax cofeel ga yàlla def ci diggante ak moom defu ko sa digganteeg doom ji loolu moo tax yàlla ne dénk naa la yow jigéen ji bu doom juddoo yaral ma te sàmm ay àqam yaral ma te toppatoo ko loolu jëfi yàlla la kon li nga xam ne mooy ki war a yor gone moom ala ci lislaam moo di jigéen ji yaa kitaab alkarim anta habibi wa xalili wa kuntu qablu tabi